commerçants, industriels. Pour augmenter la visibilité de votre entreprise, affichez-vous sur cetadakar.com. pour vos clips publicitaires, votre site internet, vos films d'entreprise. Contactez LS de Lori sur cetadakar.com, le magazine tout en vidéo qui parle aux Sénégalais partout dans le monde. Je suis content de trop ci Je bi ngeen quoi ci à Dakar bon man Dakar donc euh, entre usine Pékin. quoi donc man papa commissaire de police mais dafa teel a génn quoi mais bon su suis yar quoi. bon comme classique <laughs> album. donc ko def ak Prince Art donc euh, yàlla defoon na ma clip mais comme clip dama jëlone ay image euh, un café avec donc une télé yi daal di ñom duñu lolu parce que émission TFM la donc là bon ma suspendre clip bi pour wara tourner benen clip bu Bess. bon un bi mi ngi Pucci Pucci quoi genre dialecte la quoi bon Pucci Pucci moy chéri quoi mon amour quoi wa bobu ci album bi bu bess lay génn bo xamni bon mang koy projeté depuis temps yep mais amna ci bon ba léegi pareeguma ko mais comme vraiment bientôt quatre ans defuma album depuis ISBAC bi donc ma ni bon xaral ma vraiment me préparer fan si dara quoi. Euh, pour en revenir un peu à Manel mom woyam yep foog muy wax lo xamanteni c'est instructif wala si soit yow dund ngay jël diko diko way. non dundou mako ko parce que bon man ku xam xamni ci woy yi donc amna expérience depuis ma am 14 ans ba léegi maa ngi woy ku ne xam ne super étoile Youssou Ndour laa commencé woy sama premier album premier morceau bi ma def maa ngi ko def ak ñoom ci vol d'Abbi vol en 83 donc euh, morceau bi mu mës a bind kenn du ma bindal man maay binde. et puis tamit li am rek laay wax quoi parce que mbaxal tamit bon rendre hommage jigéen ñi la di leen yee lu mel ni jigéen ñi moytu leen góor ñi dañuy naxaate aussi lépp di leen yee bon ndetteelu weer wi affaire borla la loolu moo am ci société bi bon ayda du lu mu dund quoi mais quand même nit day parfois da ngay xalaat quoi nit di ni am na ñu koy dund. bon man je pense que woy yi may def ni don la dama ko donn man dama judd rek woy man bi ma amee trois ans sax maa ngi woy et puis amoon na ay maam yoo xam ne si sama côté papa euh, samay maam yu jigéen ay woykat la ñu woon xaw ma ko woon nag quoi mais. par la suite lañ ma ko wax quoi ni ma am nga maam yoo xam ne macha allah ay ndaanaan lañu mais je peux dire que la génération bi sunu famille man dong man ma ci woy loolu ko def quoi mu nek don suis xamni depuis ma depuis ma amé depuis ma xamé dal depuis ma ans depuis ans 12 ans commencé à fréquenter orchestre. l'orchestre nga commencé. bon orchestre commencé bon man ballet la Sangomar école des arts après ma suis fa nek na éclair bu bon daan dem walu orchestra bi ne Grand yof dem Mayombe bi nekkoon waagu ñaay nyom jaxate ñom Adama sar ñom Mbaye Niass dan dem aussi dan naa fréquenté Paciko l'an 2000 daan naa fréquenté orchestre gestu bi kon centenaire donc pas mal de choses def na ko ba daan naa aussi Star Band Miami Ibra bon ba yalla def ni ma ndur gisee intégré ma ci super étoile quoi man je peux dire que ni bi may am 5 ans ma ngi woy té vraiment aussi am don bu graw wa bon par par par contre nak bima ma woi booy kat bu ma dégg woi naa la imité kat bu ma dégg mais kat bi mu dan gënd imité imité Pape Djiby Ba bon super étoile comme mbéygee fay bobu ndombon la ma euh, Bale Sangomar de passage may nuyu sama yaay Oumou ak tonton Bouli et pa Moussa donc man bobu boy la dan woy après par la suite benn bis bi Youssou Ndour bàyyi étoile de Dakar une semaine rek ñu essayé ma ànd ak ay copains dem fa bi ñuy essayé woykat yi mbéygee fay gis ma ne Youssou booy bi booy bu man a way nga nii ci la ma mbéygee ci la ma Youssou ma booy wayal bon vraiment ma way nag ñu kii quoi ñoom ñëpp ñu excité bon ci la ma Youssou nii booy vraiment daal bëgg naa la jàppale quoi. bon nekk naa fa deux ans nag après bon woyu ma parce que boobu xale laa bon après ma nekk Youssou yóbbu ma may jàng ñëw ma dëkk Rikens dëkk naa fa pendant longtemps deux ans la fa après nag euh, ci la Youssou def vol set dab bi ma woy ci aduna vraiment morceau bi génn nekk tabac bu grave sax. par la suite laa def album boobu bon album bi sax mën naa la citer qui yi ci nekkoon dab bi y avait Baye Wali y avait Nicolas ñu ci woon après moi ci aduna vraiment ci la album bi génn nag gars yi xam ma tasanteeg ndeysaan euh, suñu trompettiste bi gars ñu marque Samb yal na ko yàlla yërëm ñuy def hommage au Sorano ci le ma Youssou njëkk a présenté waaw j'avais 14 bon vraiment affaire bi fallait éclater quoi. Youssou mës na formé deuxième formation ci la nekkoon y avait Malan man Ranjalo, Kabougay, même El Fayou <laughs> ci la nekkoon après ah, la suñu joué fa def fa ndettelweer mu am succès trop après bon groupe bi tas. Tout son groupe bi bob. non comme bob Youssou dafa formé won deuxième formation mais amuloon moyen yu bari donc les gens daan dem tourner on est obligé ñun ñuy xaar pour amateurs matos bu ñu quoi mais finalement bon affaire bitas tas ñu toog fi y avait un benn blanc boo xam ne benn finlandais boo xam ne daan na fi ñëw daan joué ñun groupe bi rek la daan rêvé mu tombé mu fait groupe bitas tas ci la formé à des Asamaan donc ñu dem Europe mais bi ñu Europe tamit vraiment yàlla ubbil ñu fa buntu quoi. bon année ngeen dem. 87 là dem Finlande vraiment ñu nekkoon presque ci meilleur groupe africain yi fa parce que daaw ma joué ay comme les quoi dañuy yóbbu France boo demee soirée sénégalais ngay joué non non man ay Pori Jazz là, dans jouer ay Sen ak Miles Davis ay Blood Broda ay Pori Jazz ay Womat Festival ay Sena Yoki you know affaire yoy lañ dan def quoi euh, professionnel ñu amone succès bu graw quoi vraiment amone fa ay label yo xamni ci ni machallah ay sponsor yoo xam ni vraiment affaire musique dëggantaan nañ daan def daal parce que bon léegi loolu amatul parce que bu njëkk ba pour musique ne il faut nga am label bu lay tourneel quoi xam nga mais par exemple dañ daan tourner ci ay label yoo xam ni ay Cool on the Gang dañuy jouer ay Blues Brothers dañuy jouer les grands ñi nga xam ne da nga leen di dégg Amérique yi yëpp da ngeen di jouer ñoo sur scène. yow mi nga delluwaat ci Youssou après. ah mais je peux dire que Youssou <laughs> Youssou c'est c'est comme un grand frère Hein? parce que <laughs> buñ ma xamé xeyna peut-être seen génération mais buñ ma xamé tay melomaan buñ ma xamé yus Ndour moo tax ah. te vraiment il m'a beaucoup aidé Youssou ñu daan ñoo dekkone ben kër daan bokk ben lal di fanaan ma nek problème quoi mu jangal ma lu bari ba ba légui lolu dañu fa ah. man je pas dire que c'est super étoile la bokk ba légui ah, parce que mom dama koy xol comme sama kilifa quoi après par la suite la def ak talé jaay mbaxal boo par la suite nag la musique bi doy waar trop. donc après ma dem Kaaba quoi ma demee Kaaba bon bi ma ñëwee ci laa def ISBAC. ban année nga dem Kaaba. nag yàgg naa dem Kaaba mais cette fois ci bon ay 2000 laa fi jógee. doole rek. waaye ah, ah, doole góor moom dëkkul fenn. mais boo fa demee nag di fa gis lu neex gis fa lu mais boo ko muñee rek yàlla nag mooy jàppale jaamam donc liggéey naa fa lu ne waaw woon na mais. alhamdulillah ko dañ nga li Modou Modou di daj ñoom lu ko raw la daj ñom amon nañ ay keuyit am am liggey di liggey ak yoy mais man am kër guñu ñu dëkk mais man man aw ma woon papier amoon liggéey ba dem nak da nga xey rek décider ni da ngay def dama xey décider ni damay dem quoi dem rek tant de chance waay mm-hmm. non parfois nga dëkk hôtel parfois nga dëkk ben kër copain parfois nga nga fanaan ci train yàqu yi. Euh, pour ma gën a yee nag jeunes yi quoi wërsëg yàlla moo koy joxe wërsëg yàlla moo koy joxe waaw parce que du loo xam ni da nga koy dajale. waaw ab jaam moom fekkee da ngay gëm yàlla lépp lu lay lépp luy ñëw ci yow rek dalay bett waaw li gën a am solo rek mooy gëm yàlla bañ a dugg ci leen loo xam ni si nii rek du loon lu rafet quoi mais nit ku ne. na ma yàlla baal ni yàlla waxee ci alxuraan nit ku ne tey boo waree faatu foo man a nekk dinaa la fekk jël noonu la mbóorsëg tamit mel boo waree lekk dara noo mën a def allah kulli ali da nga koy lekk. bon suma production is back bi il fallait mu demee parce que ku toog ci ku ñu xamoon am ni booy yi woy yëpp gars yi fii woy génération bi yëpp man seen idole laa woon ñu ci bari dañ daan rêvé way quoi ndax man quoi. non seulement que ñoom maasa génération seulement dem lañ njëkk woy donc boo nekkee ci mbir ñu xamoon la fi ñii sax foogoon ni tey affaire dina demee noonu mbir yàlla na moo demee noonu nga toog fukki at woyoo mais boo ñëwee am astut ak avant may dem promoteur yi kenn nangu te produit suma album su ma ñëwee il faut mu wane suma bopp wane suma bopp moo tax bi mu ñëwee vraiment wutu moon xaalis ci album bi bi mu ñëwee vraiment dama dem studio TV El Hadj de passage ma di nuyu wa 2STV vraiment ñom it ñu contribuer ci vraiment man it ma def les gros moyens ci album bi donc album bi lekuma ci non seulement ndax piraterie bi mais content na ci parce que bima ma ni man bac you know gis nga ni mbedd mi foo tourner même là léeg président day ñëw sax ñu ni le président is back Idrissa Seck is back Ness is back dama bëgg ñëw xam nga diñu naan back again mu bëgg ñëw defaat nag parce que wane woon naa ISBA rek mais dama ko bëgg a confirmer te gëm naa ni vraiment idée bi ñu am maak Prince aar Ibou Ndour vraiment bu ko yàlla sottalee dëggantaan ah, bis bu album bi génn dana xam ne ñun liggéey nañ bu bari parce que xam naa sax temps bi moo doon xat mais dama ko bëggoon na booleek benn genre film document boo xam day génnantoog album bi. mais man ku ma xam-xam ni dama mas a sañse ah. <laughs> man même bi may nekk booy dama daan sañse ah donc euh, da nga laaj ñu njëkk da koy laaj Salam Diallo wala nga laaj ñu ñoom Youssou Ndour bon clip bi sax je pense que dinaa bett ñu bëri parce que dama bëgg relax quoi waaw changé quoi bàyyi solu beeg ñu doog a ñëw quoi. ban anecdote nga ñu mën a nettali si biir yi nga naan def. bari na de. <laughs> boo si gën a fàttali nga xam ne boobu moom doo ko fàtte. Ah, bu ma gën ba ma dul fàttaliku non daan naa def bêtise bon dañ daan def bi ñu nekkee usine benn tali donc par ah, euh, par goudi bu ñu pas damay dajalé gel sama dom bàjjen yi sama copain ni len kale ñu dem quoi ok donc bu ñu demee amon na fofu ci marché bi ñu daan jaay bol moy bol bol yoy quoi lélé mu réussir mais lélé du réussir donc benn bis bi ñu euh, bon ñu sàcc mbàq xam xam ma mbàq yi kii ñu bi ñu bi ma xëccee mbàq bi sant naa ni ñu ngi may xool ko ñi ko moom ñu ngi may xool parce que ñi ngi xaar ma jël rek pour ñu jàpp ma door ma quoi laa ma daan ni gars yi non dil bi yàqu na mais nañ leen dem ma ñëw fekk benn copain boo xam ne moom daa bëgg yàpp fekk mu jàng la somme ma ne ko dama am benn dil marché ba lañ jógee na nuy benn laxas ngan di kumpa kumpa mooy yooyu laxas yu ngand yooyu quoi mu ne ma ah, ma ne ko waaye sàcc nañ ko ba nga xam ni da ngay ñëw rek xëcc mu dem ndeke boobu gars yi naar yi xam nañ ni ñu ngi ñëwaat même place lañ ko bàyyi comme man xam naa ni jëli nañ ma ma ànd ak sama benn copain bi ñu ñëwee copain bi mu ñëw dóor ko si ñu ko manganee mais fi mu xëcceeg fi ñu ko dóoree benn la. équipe bi tamit bon nañu góorgóorlu quoi parce que ay jàmbaar lañ nag mais nañ gën a lu ba. dem Coupe d'Afrique indi fi Coupe d'Afrique waa ma kontaan trop di ñaan seet à Dakar dem ba nekk benn chaîne euh, télévision te gis naa ko vraiment di leen gërëm yéen ñëpp quoi di leen ñaanal ok di nuyu suma fans yi ciao